feccum feccum tukulóor aja tooroor tooro waaw ziar tooroor sant nii kay am jàmm baax tooroor xanaa nga mer waaw sama xol neexul lu na sa xol waaw kii dama ko bëgg a duma waaw dama ko bëgg a duma bëccëgu ndar kaam lan la la def waaw kii daf ma def lu ma naqari Hmm. incha allahu rabi te la 15 incha allahu rabi naa ko duma naa ko daan. loolu moo la tere fecc. waaw. kon la 15 doo fecc. la 15 du ma damay xaar at bi népp bu wàccee loxoom. ko dama nga xool ko ci bët na ko. kii Serigne Saliou naa lay jiñal kii tàppet la ñii ànd ak moom ay tàppet lañ kii. kii munul bëre mënul xeex. wax ko yow maa ko dàq bëre maa la dàq xeex duma ma bëre yow dama lay duma dama lay daan yow man maa la wax loolu bébé déggoo yow yow. du ma bëre yow dama lay duma dama lay daan tàppet nga tàppet nga boo gisee kanamu France bi ma yor nga jàpp ma diggu géew ji koy wagalaa yor damay soppeeku hmm? barki Sëriñ Saaliw damay soppeeku. Kalidou Kane doo bëre doo xeex. barki borom Touba Kalidou Kane laa tudd. doo bëre doo xeex. doo tus. doo tus eh, na la de. wallaahi Asim doo bëre doo xeex. wallaahi Asim doo bëre doo xeex. la fa neex maa ngi koy def la fa neex man maa ngi koy def incha allah. sëñ li ngay wax fii la làmb ji fii nga lii nga ci am yow yow man maa la wax loolu. boo ma xamul moo xam lu tax mu delo avance bi ceebu xonk moo xam lu tax mu delloo avance bi. yéen ñëpp ay tapet ngeen yéen ñëpp ay tapet ngeen moo tax dinaa la duma dinaa la daan yow maa lay duma maa lay daan doo tus damay déggool yow yow doo waxa doo waxa yow man pël bi doo ma dégg xanaa day daw rek danga may laaj pël la Fuuta laa pël bi tukulóor bi sama yaay sàll la san sama baaba kan doo tus maa la wax yow xamoo ma de damaa dégg nii rek ñi ngay àndal ñëpp ay tapet ngeen seen waa ko ñëpp ay tapet ngeen man maa la wax man ak yow la bu la neexee seen waa kër ñëpp ngeen mu ñëw waaw man ak yow la waaw yow doo dërëm yow doo tus mais lu mën xew jàppal ne man ak yow wala yow torodo yow xaalisu lamb seen nëw yow doo xeex ak man dangaa mag man ba may nekk jàmm nga 2010 si tadi bëre mbapat si tadi bëre mbapat 2011 laa nekk du tànk di ko toog yow boo ma xam yow xamoo ma boo ma xam yow tàppet nga dangaa mën a bëre jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf naa ci yéen woote woote waaw lamin ginnaaw bu ñu sant yàlla julli jonante bi maa ngi sant sama ñaari waajur di sant ñëpp di sant sama yaay bu baax di sant samay doom baay yëpp waaw ñu mel ñoom xaadim loo di woo dëggal sama tooma ah, yàgg ngay jàpp waaye jàppal zàlloo sama doom baay waaw di zàlloo non bokkul ak zàlloo moom sama doom baay di woo dëggal bu ngoy sama tooma ah, maa ngi lay woo ci bés bi yàgg ngay jàpp mais jàppal jàppal surprise as daaro abdou daaro maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn mafia bi waaw maa ngi gis de mais gisaguma leen boobu ba léegi maa ngi woo ñëpp nag képp kuy doomu Ngoye maa lay woo ci bés bi ngeen jàppale seen doom seen rak waaw ngeen jàppale ñu bu baax a baax ndax li problème bi ñun xale yi Ngoye dina amul jàppale ñun xale yi Ngoye amul jàppale loolu mooy suñu problème doomu Ngoye laa képp kuy doomu Ngoye da nga laa nan lu jàppale ngir yàlla man doomu Ngoye laa te xale laa jàppale leen ma waaw ginnaaw ma ñaari waaju maa ngi naan jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jaaraam moom Cheikh Ibrahima Fall waaw di ñaanal sama yaay yàlla xaaree ko àjjana ak bépp waajur bu gaañu yàlla xaaree ko àjjana ñi ci gaañu ci feeti élection yi affaire yi paase ñu ci gaañu yëpp yàlla suturaal leen may leen tan ñu ci gaañu yàlla xaare leen àjjana firdawsi waaw di woo waa ñaari tali Grand Dakar NGB bi yëpp waa koñ Bagaar waa asalem waa Bisteri benn tali ñaari tali jàmm gën tablo xaadim foora ma kenn ba Kër Massar di woo sama waa dëkk sama waa mbokk waa Fuuta bàyyiwuma kenn mbimo noddimon on fof mbiyowo mbimi mbimani fof min noddimon inchallahu rabbi di nuyu waaw di nuyu sama waa koñ waa cofuro 37 four di ñaanal sama doom day jës yàlla may ko ndam ak Ziza merci kontaan naa bu baax a baax jërëjëf fee eh, jeex na nag jeex na dem leen toog dem leen toog dem leen toog pël bi demal toog pël bi pël bi demal toog yóbbul ma rajaxe ak booyu Grand Yoff rajaxe rajaxe